ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen kontaane bu baax a baax ci seen àndina ak le buzz di web seen buzz TV mbégte kontaante la ñu saa su ne ci daandoo yéen si am ak koo xam ne xam nañ ko bu baax a baax rawatina taxawaayam ci groupe Faramaren muy délégué Amar délégué Amar moom la seen buzz di am euh, ci am moom jotaay xanaa rek pour commencer Modou euh, damay am mbégte vraiment si jotaay bi euh, mënul ñàkk aussi vraiment ma gërëm la bu baax a baax aussi ci disponibilité bi nga xam ne may nga ñu ko maa ngi leen di siyaar bu baax di nuyu ñëpp di nuyu Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaanal suñu borom yàggal ko. Mhm. te wéral ko te kàttanal ko. Mhm. noonu lañu koy ñaanee këru tarixa diine yëpp di ñaan suñu borom yàggal leen te wéral leen. Mhm. di nuyu ñëpp di siyaare ñëpp di baalu ñëpp àq. te leen baal àq. très bien jërëjëf alors pour commencer euh, Modou dama la bëgg laaj. Hmm. naka nga jàngatee en tout cas coow li nga xamee ni juddu na au sein de groupe Faramareen euh, te li ko déclenché di Mara bi nga xamee ni génn na ni dafa feebar déjà Mara nekkoon suba teel ñëw groupe Faramareen noo ko jàngatee. waaw dafa doy na waar ci Mara communication bi nga xam ne def na ko. muy hmm. tawat ku ko dal. Hmm. ndax ku nekk day ñaan yàlla sa borom. sa mborum mbokkum jullit wala doomu aadama bu tawatee nga ñaanal ko suñu borom defal ko wér mm-hmm. mettit nañ ko lool ndax ku nekk danga koy xool ci sa bopp nit koo gis nag am na droit nekk ci bërëb jóge fa dem ci beneen bërëb loolu nit ku nekk am na ko donc tawat gi ñun moom incha allah wax naa ko démb nee naa leen lu ma ci man ci sama kemtulaay kàttan ba mu wér mm-hmm. dinaa ko def man bi incha allah ci kaw nag mu ñëw Sénégal ñu jàppale ko ci niñ ko war a jàppale maa ngi koy maa ngi koy xaar mu ñëw incha allah d'accord ñu jàppale ko ci niñ ko war a jàppale ma boole ko sama ay xarit. Mm. sama ay nit yi nga xam ne mën nañ ci dara. muy ku mel ne sàmm Ndour. Mm. Euh, jàpp naa ne bu Mara ñëwee dina ci mën a def ay taxawaayam ba mu ba mu nekkaat wér-gi-yaram gi mu amoon mu amaat ko. Mm. ci kàttanu yàlla ndax li ko dal métti na trop trop. vraiment. d'accord très bien polémique bi ci am bokk na ci dañu ni Mara dafa mel ni ba muy ñëw euh, fi nga xam ne ni mooy groupe Faramareen dañ ko influencé ku mel ni Baysal moo ko influencé ba indi ko manipulation laak yu demee noonu ndax jàpp nga ni de son propre gré moom la ñëwee ci groupe Faramareen. Ah, moom wax na ko nee na du affaire de Baysal moo ko kii pour mu ñëw Faramareen wala nangam nangam. dafa feebaroon nekk Italie. Mm. Baye Zal gis tawat gi ko dal mu ne ko ñëwal France ma yéem la faj. Mm. ñu yóbbu ko France rajo ko gisuñu dara ñu yóbbu ko Italie rajo ko gisuñu dara kon jàpp naa ne bu ñëwee ci coobare boppam la ñëwee mbaa ci coobare Baye parce que Baye Zall mën na ko xëcc ni ko ñëwal fii te bëggu fa ñëw du fa ñëw ci gëm-gëmam ak coobare boppam la ñëwee foofu. Mm-hmm. te it gëw ma ne sax dafa jëw Faramarine à 100 pour cent dafa ñëw rek tombanteet ay événement am biir Faramarine ca Paris. Mm-hmm. mu nekkat ñoom jàppat ñoom ci ci mbir mi loolu laa gëm. te it gis nañ ne Wally génne na album mu xam ne citoyen la te doomu réew mi la war naa mën a jàppale artiste su réewam mm. dem jënd ci CD yi mm. mais gaw ma ni dafa fa fale ñëw fii loolu gaw ma ko d'accord voilà. alors ban lecture nga am ci ñi jàpp ni vraiment dafa xaw a contradictoire par exemple parce que adama bi nga xam ne moo déclenché coow li tey groupe Faramareen en tout cas fa la ko ñëpp xamee Baye Zal bi nga xamee ne aussi moom lay déstabiliser jamono ji ñëpp xam ko jamono ji taxawaay bi nga xamee ne am na ko ci wetu Wally ndax xamul nekk vraiment lu contradictoire pour yow Adamo moo leen doon défendre <coughs> tey kenn ku jege wala ku bokk ci a défendre kenn Adamo boppam poosam la défendre ah bon waaw Adamo danga koy fay xaalis waxal ci diw mu wax ci diw kon Wally da ko daan fay non waxu mosoo ko gis Wally Wally amul ci moom soxla mais en day défendre Faramareen fi défendre Faramareen wala Waali ki fii kenn du ko fi defu ko fi te yàlla rek tax mel nu man maa ko fi def Adamo da nga koy fay xaalis ne ko waxal ci Modou Amar mu wax ci moom mënumaa gën ne yow da nga bëgg Waali comme délégué ni mu mel ci Waali nga woo nga délégué ci boppam at ni mu mel ci Waali wëlbatiku di xalab ay liggéeykatu Waali di yàq seen nder wala di leen saaga wala di leen wax lu ñaaw kon boo waxee ne bëgg nga Waali du dëgg parce que ñi nga xam ne dañoo nekk di xool avancement Waali ngay gor seen tànk di leen wax lu ñaaw kon bëggoo ki nga wax ne ba nga bëgg tey jii bu fekkee ne ku mel ne Adamo doo koy hmm. fay xaalis ne ko waxal ci délégué lu ñaaw day dem fay wax ko te li muy wax dara du ci dëgg ku ne xam na ne kooku su yoree preuve da koy teg ci internet bi hmm. bu yoroon ay preuve bu bàyyi saal da ko naan fàng ci internet bi ne gis ngeen moom envoyé lii ak lii ak lii kon li muy wax ñun gëmuñu ko duñ ci dóor suñu doom. Mm-hmm. voilà pour jaxase nit ñi la pour jaxase a famille la pour jaxase ay nit yoo xam ne ñu ngi ci liggéey di doxal ni ñu war a doxalee. mu ni mm-hmm. da leen di jaxase. Mm-hmm. daaneel leen loolu la rek man gë gisuma kon kon yu brusque yi Adamo di am ci Baye Zale da nga jàpp ni. du leen euh, dañ ko fay dañ ko yónni maanaam euh, gis ngeen bu ngeen seetloo waale dem na ñaari yoon Paris te gisante wut at kooku. ak Adamo waaw parce que heure bu demee ci hôtel bi pour gis waale du ko mën a gis Baye Zale la koy xañ parce que kooku mérité wul di jàkkaarloo waali wala muy gis waali parce que du nit ku baax. Mm-hmm. bu ngeen xoolee sax ci yeneen côté beneen côté bi la nekkoon. Mm-hmm. ci ñoom gis ngeen ko muy muy muy ñoom buusee yooyu noonu. parce que mënul am accès ca waali mënoo toog ne da bëgg waali boo xëyee di saaga Ndiaga Euro wala boo xëyee di saaga Omaro wala boo xëyee di saaga Paco wala keneen ak keneen ak keneen kon kay bëgg a waali te ñooñu ku leen xam-xam leen at waali loolu mooy indi problème maanaam gis gu mu bëggoon a gis Wally ca Paris mënu ko gis Baye Zal xañ ko ko. Hmm. mu ni day indi guerre at moom. d'accord kon da jàpp ni li ñu bari di jàpp ni dañ ko écarté bokk na ci li gën a tax mu révolté wu jamono ji di wax ak. loolu la rek ay Wally dañ koo liggéeyat ay nangam nañ ko loolu kese la. d'accord donc kon écarté bi écarté bi ci Wally am na. Adamo lan la yokk Wally dafa jox Wally ay contra ah dafa signé Wally ay lan la yokk Wally lu du toog ci internet bi du saaga ay kilifa bu buñ jógee ñu jël lépp teg ko ci kaw waale loolu la Adama ah, bàyyiwul kenn ay kilifa diine yi sax da leen kooku nit ku baax la yow xam nga ne kooku fa naw la woo yow tamit. Mm. te li ma leer ba leer bu ñëwoon Sénégal gi doo ko dëpp seen micro. Mm. kuy xalab kilifa diine yi barki démb la jàpp benn kilifa diine lu ne ma ko. Mm. tey xoolal xoolal euh, kii ni ñu koy waxatee Mandiaye Seck bi yaayam at nu mu mën demee waajur la. at nu mu mën di demee waajur la ñun ñi kenn ku ci nekk am na waajur. Mm-hmm. muy mañaay di am koo xam koo xam ne artiste la ci dëkk bi at nu mu mën di demee nga tiim waajuram di tudd nangam juróom di ko teg ci internet bi te sa yaay tëdd Louga gee taxawoo ko dimbali woo ko te dinaa jàpp benn jour wax naa leen ko yéen journaliste yëpp ñu ànd dem Louga. Mm. ngeen xool waajuram ni mu ko bàyyi ni mu bàyyee waajuram. Mm. waaw. et puis moom danaan yaayam gërëm na ko. je sais pas yaayam gërëmu ko ndax bu ko yaayam gërëmoon. Mm-hmm. warut toog di saaga yaay jàmbur. bu ko yaayam gërëmoon warta toog di xalab waajuru jàmbur wala di wax waajuru jàmbur lu ñaaw sëñ bi nañu waxtaan dëgg te tax képp koo gis laa la wax muy jël muy jël aadamoo di ko di ko teg fenn fi. Mm-hmm. naa fekk man maa la wax loolu. képp ku koy def di ko jël di ko teg fenn fi naar feex nga. d' accord mais délégué est ce que kon mënuñ jàpp ni écarté bi ñu ko xaw a écarté ci waali léegi dafa mel ni euh, benn mer bu mu dencal waali la xamul fu muy jaar waali mu ñëw si ñu ko gën a jege. muy waali di Sidi Diop Pape Diouf ku mu mënti doon waroon nawloo aadama yu aadamoo ndax ñoom kenn ku ci nekk am na exemple am na loo war joxe ci réew mi loo xam ne xale yi war nañ cee jàngat kenn ku ci nekk waroo jël aadamoo di ko teg ci kaw kenn ci ñoom. nit da xool ki nga xam ne nawloo nañ ko respecté nañ ko nga jël ko teg ko sa wet nekkat moom mais Adamo kan moo ko nawloo ci réew mi waa na ñëw Sénégal kay du ñëw Sénégal. Mm. Ah, ngi noonu loolu la. d'accord mais am ñu naan ni Adamo amee courage. te mu ngi def loo xam ne xëy na baaxoo wuñ daan ko gis au moins daan na wax yenn yi sax ni dama rus waa léegi yu deme nii. mais bi gis nañu day rek day wax rek. li mu daan wax gëmu ko pour yow. gëmul dara koo gëmul dara. gëmul yàlla gëmul ci gëmul dara gëmul dara mm. gëmul waal de euh, wax naa la ko sànq nee naa nit su fekkee ne da ko bëgg gëm ko mm, mm. war ngaa xool waroo jàpp ñi nga xam ne ñi ngi liggéey at moom subaa ngoon guddeet bëccëg mm-hmm. di leen saaga wax naa ko fii démb man ne leen waale de boo taxawatee ci kaw seenam mooy aadama man dootuma dem soirée ah bon waaw parce que mënuma jàpp ne waali ñun dañ koo bëgg te yàlla rekk tax ñii bëgg ko di ko jàppale ci liggéeyam muy saaga ñi nga xam ne chaque jour ñu ngi sonn ci yow benn golo nekk fële di leen saaga ndey di leen wax wax ju ñaaw te boo taxawee ci ko di ko way mm-hmm. nit ñi taxaw di dégg loolu mm-hmm. et puis waali way na ko ah. tax man am jeex na bu dee waale nag moom di way aadama mm-hmm. ñun ñu féewaloo at moom at gaa yi nga xam ne ñoo ngi koy jàppale te yàlla rek tax féewaloo at moom ndax aadama mi nga xam ne nekkul ci réew mi nañ dox xool d'accord mais mais mais bi donte ne am na jamono ji mais am na ñu naan est-ce que tamit amul ñu nekk biir groupe Faramareen Baye Zal xaw a dérangé ñu yónni Adamo. non non Baye Zal dérangé ku nekk Faramareen. ah bon man jàpp naa ne dérangé wu fa kenn. parce que bu doon dérangé ci amul lu muy dérangé Baye Zal ngi xool avancement waale ma ngi cay na lu ko Baye Zal di jëriñ. Hmm. ci waale di liggéey xam nañ leen Baye di jëriñ ku nekk sa waar ngay bay ci waale. ku nekk sa bi nga war a liggéey ci waale yaa ngi koy liggéey. Hmm. jàpp naa ne amul lu muy dérangé bi Faramareen ko ba mu gisuma fa loo xam ne ma koy déranger mhm. parce li nga xam ne mooy liggéeyam gis naa ne ma koy doxal bu fekkoon doxalu ko waali ci boppam am na fulla mhm. la mhm. amuñu jotu di yónni nit naan ko yàqal ki yàqal ki ñoom xam jot boobu d'accord waaw mais am na ñu naan c'est pas logique est-ce que du tamit dafa am beneen camp boo xam ni ñoo fay Adamo aussi pour mu ñëw déstabiliser groupe Faramaréne ndax aussi jaaduwul ñu xalaat loolu délégué. non ñun mënuñu kenn mënuñu xooxtal kenn mënuñu yëngal ñun moom bul wari ci loolu. Hmm. ñun moom faale wuñ ko yàlla bind. ñun kenn mënuñu xooxtal kenn mënuñu kenn mënul euh, yóbbu suñu xel daal. Mhm. ñun na ngi si li ñu focus ay aadamoot ay sàmbamoot yooyu mënuñu mënuñu tiital ñun wariwuñ ci loolu gayen. waaw ñun ñu ngi xool suñu artiste ci décembre bi concert yi nga xam ne war na ko def soirée nga xam ne war na ko def ñu ngi ci loolu. xool lu ñu avancé nekk ci leneen. mais ay aadamoo nekk fii di waxat di faramaare nag yooyu ñun. warewuñ ci loolu. d'accord yaa ngi wax sànq ni nit la koo xam ne dañ koy fay naan ko yàqal diw mu koy def. est-ce que kon jàppoo ni dañ ko fay pour mu pour mu yàq Baye Zale bu dul groupe Faramaren kon. non moom man mii sax fay nañ ko pour mu yàq ma. ah bon <laughs> benn bis génn na def vidéo di tudd sama yaay naan sama yaay amul ay verre ay nangam ak nangam. te ki ko fay ba jox ay ba jox ay kii yu leer naññi xam naa ko te dara du ci dëgg heure bi ñu ko envoyé xaalis bi heure bi ñu ko fay lépp ma ngi sama téléphone te ci dëgg. kon kay kooku dañ koy fay di ko yàqaloo nit. Mm. waaw kooku koy jëruñu koy nawloo ñu réew a bàyyi benn affaire jël aadamoo di ko may succès ci réew mi koo xam ne du nit ku baax. Mm-hmm. koo xam ne du wax wax bu baax di saaga ndey saaga ndey moom xam du taxee dara. Mm. xam nga ñaaw laa mooy saaga di saaga di saaga sa saaga yooyu amoo fi di toog sa tànk ci réew mi mm. di Sénégal. Mm-hmm. kooku jurul di focus Sénégal yi dañ focus ci leneen loo xam ne mooy avancé loo réew mi moo gën di focus ci ay aadamoot ay sàmmamoot ay moo loolu amul sens. d'accord sama waay. d'accord délégué alors. coow li yegg na ci dem bay saagante je pense que dégg nga audio yi nga xamee ni fuité na démb Bayzal di tontu di menacer ki nga xamee ni mooy Adamo déjà man jot naa Bayzal xamal na ma ni audio yi euh, bi soxna mu mi sekk ga quand même quelque soit alpha façon bi nga xamee ni moom la Bayzal waxee ak Adamo ñu bari jàpp ni tamit wax na ci ba en quelque sorte wax ji xaw a concerné kii diwaale bi mu defee woon audio boobu vidéo boobu di wax ci soxna moom ñu ngi koy ñaan suñu borom yërëm ko. amiin yaa rabbi. Euh, bis boobu laa laa man bis boobu am naa lu ma metti mm. ndax kàddu yu mel na noonu ci doomu jullit ci gor. nga ni jullit nga yow war ko génne di ko teg ci doomu aadama boobu nga xam daa wàccub liggéey te nga ni rakkam moom nga bëgg. Mm. kon xam nga ne bëggul waale. te man yàlla daa dogal ne aw ma numéro whatsapp am aw ma mm. daraam parce que audio yooyu ko bàyyi Baye Sall yónnee xolam moo àgg foofu parce que su fekkee nit ki dalaa woo ne la di supprimer vidéo yi. Mhm. nga bañ ne ko doo ko supprimer wax ko wax bu insolent boo xam ne bu ñàkk teggin la moom it bu day gis boppam. Mhm. wax ko tamit moom lu ko saf ma loolu laa jàpp. parce que audio boobu boobu yow boo ko seetaanee am nga loola naqari. ak mhm. keneen ak keneen ak keneen. moo lay woon ne kii du nit ku baax. kii bis day ñëw bis day ñëw laa la wax mu def foto te dina ko saaga. Hmm. te boo ko saagaa moom loolu moom ñoo koy xaar donc kon yéen a ngi xaar mu xëy bu xëy benn jour taf foto waale mbay si njaay ñoom ñëpp saaga leen maa la wax loolu ma loolu du leen bett ci moom non du ñu bett ku ñuy fay ngay saaga kay bu la fayee benn 5 millions nangam ñu la attaqué waale da koy def d'accord waaw mais délégué lan moo tax Adamo yàgg na ça fait presque 3 4 wala 5 ans yoo xam ni mu ngi ci réseaux sociaux yi ak na ko mais gis ni dafa leen di défendre lan moo tax dérangé wu leen ba moment bii ñu door a dafa mel ni bi mu laajee Baye Zall kan lay défendre groupe Faramareen en tout cas loolu tamit loolu tamit délégué doo ko ko doo ko ko bañal lay défendre lay défendre wax naa la ko défendre kenn mais tax ngeen toog ba moment bi mu xaw leen déranger non man man yàgguma musuma neex man man man moom kooku musuma neex mhm. parce que nit booy def vidéo di saaga rek du ma bëreet yow affaire mhm. parce war ma dañ koo xam fii ci réew mi saaga ndey fii ci réew mi xam na ne kenn respecté kenn amul sañ-sañ di ko fi def parce que sunu sunu sunu sunu réew mi xamuñu yooyu di saaga ndey wala di manqué de waajuru jàmbur wala di wax dara waajuru jàmbur. Mm-hmm. nit bu koy def rek doo ma neex man dèjà mosuma neex ci kàddu yooyu muy yëkkati parce que kenn ku ci nekk da koy xool sa bopp. Mm-hmm. da koy xool ci mu taf ma saaga ma ndey dina am ñum naqari dina am ñum neex. bu tafoon keneen tamit saaga ko dina am ñum naqari dina am na ku neex te ku nekk am na famille ku nekk am na yaay nekk am na papa. d'accord voilà d'accord. alors délégué mais mosul défendre Faramareen poosam lay défendre. d' accord dafa amoon nag ay ménagères am yoo xam ne ñu ngi fii ci mhm. réew mi. Mhm. mu leen daan ñu ko su doon waxaale at nit da nga koy dem jox ko kooku kooku yónnee ko xaalis bi. mu doo ko tax saaga waaw noonu lay dox te bis dinaa ñëw dinaa leen tuddal ménagères kon dafa amoon réseau daal réseau national. <laughs> réseau la amoon fii ci réew mi. ok bu nit waree yàq doomu doomu doomu aadama. Mm. day dem waxaaleen moom mu envoyé ko diw xaalis bi kooku envoyé ko mu yàq dara. d'accord alors maa ngi dégg ñu ne geer buy déclaré la buy déclenché la parce que depuis euh, Bercy bi gis nañu ni Adamo xam ngeen tëj ay portam mu mel ni daal guerre mu ngi waaj a am seen diggante ak moom. mu xëy na loolu waral coow li am guerran moom soxlawuñ di guerran moom. wax dëgg yàlla amuñu jotum di guerran moom. Hmm. nawloo wuñ ko bay guerran moom nag sa waaye ki ngay guerral mooy ki nga nawloo mais nawloo wuñ ko nag sëñ bi. Hmm. waaw mënuñoo yokk dara mënuñoo wàññi dara lu toll nii tarafatan xëy na mënuñu ko yokk mënuñu hmm. ko wàññi kon lan la ñuy guerran ñi nga xam ne ay ragal lañ. Mm-hmm. bu aadamoo ne yaa ñu ni yow ñooñu ñoo nawloo aadamoo mais ñun nawloo wuñ ko parce que ragaluñ ko. Mm-hmm. amaana soriwaay bi rek mooy mooy mooy problème bi kon kay mënuñu geerat moom. d'accord est-ce que du li ngeen ko gis geer mm-hmm. xam ne geer kat nga te li ngay wootee ma ngi ci yow am nga fit dëgg la da ngay jënd bee avion nga ñëw senegal wala ñun bu ñu jëndee bee ba ñëw Italie googu wala fu man di doon nga yombal mbir mi. bu làqatu bu réer loolu la rek. d'accord alors est très bien délégué Amar moom la seen Senbuzz di am ak jotaay alors euh, délégué ndax jàppoo ni tamit vraiment coow li muy bari bari yëpp comme ni ma ko faral di waxee dafa am loo xam ni euh, au sein de groupe Faramareen problème majeur la parce que maa ngi gis benn commentaire am kuy commentaire nee na lan la Adamo représenté ba Wally wéy ko fu nekk ngeen toog ba tey naan non il est temps xëy na yeneen ak yeneen loolu aussi ndax du question boo xam ne lu ñu war a la. non xam nga Wally jii sax yow boo demee mu xàmmee la. Hmm. la gisee dina la way loolu la rek. mais bu la wéyee sa parce que considéré na la. non non non non amul du ko waaye xeewul kenn ku yàlla bindee xeebul kenn ku ñëw ci soirée am bu la gisee xam la dalay woy mhm. loolu la rek. wala nga tax wala nga taxaw fee naa ko waali way ma waali way ma dalay way loolu la rek. tey ku ne gis na ne Adama bu demee soirée waali lay taxaw tàllal loxo bi. Mhm. pour waali gis ko way ko. faaw mu def ko noonu pour bañ koo toroxal. Mhm. loolu la rek mais amul lu ñuy lu muy apporter waali Adamo amul lu muy yokk Wally ci musique bi mu nekk di def amul lu ko ci Adamo di yokk hmm. amul lu ko ci Adamo di wàññi kon li de li des ba des mooy ngeen booy ko côté waxuma ci Wally kese de hmm. sii di Pape Diouf journaliste yi sénégalais yéen ñëpp war a boycotté kooku. non waxul ak journaliste yi moom. ay ay ay ay eh, ay ay plateforme ay plateforme boppam la journaliste yi. <laughs> allez yàgg naa ŋàññi journaliste yi. Hmm. yàgg naa taf journaliste yi lu nekk mu yàgg leen ko. yéen yéen ñu war a jox image yoo xamante ne ni ñun bu ñu ko gisee dinañ ci jàng lu am solo. Mhm. mais tey ku mel ne Adamo su defee benn vidéo journaliste yi jël ko tas ko. Mhm. ci seen plateforme yi lan la lan la leen yokk lu du ay vues mais wax bu ñaaw bi il faut ñu bàyyi xel na am na ay kilifa yu toog Touba am na kilifa yu toog Tivaouane. am na ay mhm. kilifa yu toog kaw Kaolack feneen feneen dañuy seetaan site internet yi. te jomm nañ di xool benn site internet di gis Adamo war nañ ci gis loo xam ne tey benn xale bu ndaw la boo xam ne tey jii mën na wax waxe na benn wax boo xamante ne nii magi mag mag kilifa diine sax mën na cee jàng àdduna mm-hmm. loolu lañ soxla mais aada moom mënu yokk mënu ñoo wàññi fii ci réew mi mm-hmm. amul sens am déet yéen ñi ne aadamoo du nit ku baax fi la mm. toogoon di mm, di saaga Macky Sall lu ne moo ko Macky Sall moo mm. butiku lan di saaga Sonko lu ne moo ko Sonko kon ngeen xam war ngeen a xam ne kii justul d'accord si suul. très bien képp ku xaritoon moom fii ci réew mi di ko woo téléphone jàppal ne ma ngi lay enregistré. Mm. te bis dina ñëw dina la saaga dina la weer. d'accord voilà ndax li mënul indi benn gàkk-gàkk ci groupe Faramareen ak coow li nga xam ne teg nañ ko ci Baye Zal ko si Mandiaye ak yu demee noonu. non xam nga tey coow loolu. Mm. coow loolu mënuñoo mënuñoo mënuñoo mënuñoo indil gàkk-gàkk. Mm. mënut nekk parce que ñun coow yi aada moo Baye Zal la mu wax Baye Zal te amul preuve ñu mënuñu cee sukkandiku. li mu wax bàyyi Zal. Mm-hmm. wax la bu mu sànni diggante ñaari noon la moom moo noonu Baye Zal ne dama yàq Baye Zal def ko mais tey ji su fekkoon ne que man Baye Zal damaa jël sama téléphone bi envoyé Baye Zal ay vidéo jàmbur ki mm-hmm. audio jàmbur mm-hmm. bis jun ma bëgg a yàq Baye Zal damay génn preuve ne gis ngeen Baye Zal ma ma ko doon envoyé boo ko defee sénégalais yëpp nag dal ci kaw Baye Zal ne Baye Zal lii rafetlu wuñ ko soo bis jërul yenn yi bu dee lu am la mais amul gisuñ preuve ay waxi kese waxi aadama jërul dóor sa doom amul lenn gàkk-gàkk bu ñuy mën a indi. Mhm. ñun suñu biir déedéet mu leen wari ci loolu. Mhm. ku ne xam na ne aar moom bu amoon preuve da koy teg ana preuve bi nañu ko wan. Mhm. nañu wan lan la ko Baye Zal envoyé ba tax muy wax naan Baye Zal moo ko envoyé aju audio yaay jàmbur na génn preuve bi teg ci taawul ji. day fen du dëgg amu ko. d'accord. voilà très bien alors ñu bari ñu ngi laaj ni euh, dafa mel ni dafa am benn haine boo xam ne en tout cas moo déclenché xuloo bi am ci diggante Baye Zall ak Adamo te mu concerne groupe Faramaren bu weesoo li nga xam ne wax nga ko jàppani ni dañ ko écarté ndax jàppoo ni aussi dafa am benn haine boo xam ni comme ni ñu koy faral di waxee yow sax yaa indi tur boobu fara ceek yi en quelque sorte. Mhm. indi nañ ko looloo indi looloo waral problème bi. non xam nga tey jii at hmm. k koo xam ne fara ceek nga jóge woon ci benn label ñëw ci label bi. Hmm. ku nekk sa wërsëg ngay dàq ca fa nga dem. kii dafa jóge fee gis lu ko gënal mu jóge fa dem ci fekk gënal mu dem fa loolu du aadama moo ñu ci indi gàkk-gàkkat ak ni ci tilim tilim hmm. moom loolu concerné woo ko comprendre nga baax mais ne nañ fara cekke yi dañ ñëw ak seen liggéey waali waali àndutul ak sagoom bon ñu leen di accuser yu bari yoo hmm. xam nga kuñ liggéey ni mu mel xam nga kuñ liggéey ni xam nga ne waali ma ngi ci forme xam nga ne waali ma nga daan gisat waali mi bokkul hmm. tey la waali gën a am forme tey la waali gën a xadar ñun loolu moo ñu intéressé te loolu moo ñu soxal ñun li ñu li ñu li ñu soxal tey jii tey jii mooy décembre bi suñu ay concert yi ñu am dem tëgg ko ci jàmm ñibbiwaat ci jàmm te duñ tëgg fenn di fa am defet mm-hmm. ay waali liggéey nañ ko liggéey nañ ko gis nga kaay wax na rek ñi naan waali liggéey nañ ko ñoom ñoo doon jéema liggéey waali te liggéey ba antuwut ñuy génn naan waali liggéey nañ ko mm. waaw ma wax la loolu tey secret boobu koo gis mu toog naan diw liggéey nañ ko diw liggéey nañ ko moom moo doon jéem liggéey nit ki far liggéey ba antuut mu génn ne moo doon liw liggéey nañ ko pexe bu ne nag ñoom def nañ ko pour mm. liggéey waali itam antuut mm-hmm. moo tax ñu génn naan waali liggéey nañ ko kaay ma la nag waali kenn mënu koo ba jàpp ko ci seen njabar yi ñuy def de mm. ku ku jàpp nag ci njabar amul waaye ci kaw nga jiitu leen comprend nga baa fa may mm-hmm. bi xam nga moo gën ñëpp mm-hmm. te njabar nañ ko jàpp ko waaye suñu borom moo ñu doon jàngal suñu borom xam nga ne ñu njabar yonent bi jàpp ko moom la neex moom la neex. absolument mais daf ñu doon wan ñun jullit yi. Mhm. jàngal ñu dañu doon wan jàngal mhm. pour xam lan mooy njabar. mais nag bu fekkee nag ku mel ne Waly seetaanul boppam ñun ñii tamit seetaanuñ suñu bopp. te mhm. seetaanuñu Waly. ku jàpp ne nag boo tëbee di nga njabar Waly mu jàpp yaa ngi nax sa bopp parce que jiitu na la. wax ji yegg nag dafa ko moom très bien délégué Amar moom la seen bés di am ak jotaay alors bala maa génn foofu bu amoon tey euh, message boo xam ni bëgg nga ko jëmale ci sénégalais yi justement par rapport ak euh, situation bi nga xamee ni ñu bari jàpp nañu ni quand même yéen la concerné groupe Faramareen ak coow li comme message jëmale ko ci Baye Zale aussi lan lay nekk waaw message bi may wax ci Baye Zale mooy mu góor góorgóorlu nekk ci lim nekk rek hmm. te xam ne day mbi léegi di waale wóolu na ko jox na ko liggéey ne ko doxalal na doxal xoolal bu mu fukki si li gars di wax bu mu ci bu sax woor yi na liggéey ci li muy liggéey jàpp ñàmburam xam lan moo ko intéressé moom mm. Baye Zale na xam waali lan la ko jox rôle bi mu liggéey lu raw li ko waali jox ba ëllëg fu mu taxaw du am defet loolu moom solo mm-hmm. Sénégalais yi nag moom lu ma leen dégg mooy genre aadama yi bu mu tax ngeen féewaloot kenn bu mu tax ngeen ñaawat kenn mm-hmm. parce que moom a ngi toog fa mu toog di liggéey la muy liggéey di fayee ko ñu koy fay mu yàq nit mm-hmm. amaana sax su ngeen xooloon këyitam ba moon leen passeport am këyitu góor jigéen ngeen ciy fekk na wane passeport am këyitam du ko mos a waree de. comprendre nga kon hmm. kooku yéen sénégalais bu leen ko nawloo te bu leen àndat moom te bu leen ko déglu. très amul lu mu leen yokk amul lu mu leen di wàññi. Hmm. focus leen ci li ngeen di nekk ñi liggéey liggéey ñiy jàng jàng. Hmm. avancé. très bien Adama bu mu leen tàrreel. d' accord alors dégg naa ni chargé des affaires nga ci guvernement bu Waly Seck Thiat Seck ginnaaw bi nga xamee ni otoom yàqu na jooytu na ni li ngeen ko joxoon baaxul génn na baalu dégg naa ni yow chargé des yaa ngi waaj pour ñu changer ko kan la ñuy changé oto. Thiat na baalu na baalu na finalement ba génn na rafetlu. wax lu sax du ko fi amati. comment donte ni baalu na. wane ni dégg vélo sax du ko fi am. kay na dem rek. ah dafa juum dafa d'après ni mu waxee dafa juum si euh, communication. juum mën nga ko def benn yoon amul problème. nga génnaat ñu laajaal la nga gën a insister ne tey la ko gën a mën a wax kon kay kooku baax doole la jumut génn na wax gars yi Sénégalais yi comment mu génnaat ne tey laa ko gën a mën a wax. mu dem ba affaire yi ëpp ko doole. bu mhm. nekk génn mu ne day juum day jégalu nangam. loolu buy bay wéy na mbuus vélo dootu ko am biir Faramareen kooku.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 këj këj këj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 97 guddi gi day neex kër gi day neex gàlle bi day neex féppay neex